entre Ousmane Sonko et ki nga le président Macky Sall alors euh, Serigne analyse japon il il y a quelque chose qui ramener été fait entre temps. pourquoi cette décrisp euh, décrispation allant dans ce ah, sens. Euh, parce que Atepa génn aussi sur RFI deux temps après ñu à une libération massive de ces détenus politiques alors ban jangal nga siy def exactement coïncidence la wala kon peut-être lo xamni tam dang ko togg ba paré wala kon Ousmane Sonko condition yi nga xamni tam poser posé na ko président Macky Sall na ni euh saa su libéré ses détenus politiques dina ñeu dialogue ak moom suñuy fàttaliku ci premier dialogue bi exactement ba sax ñu naan président nee na kenn du ko dicté lu mu def et tant d'autres et tant d'autres alors nga japp ni y a quelque chose bo xamni tam xewna euh, euh, de euh, de façon inaperçue ba tey ñu assisté tay à une à cette libération massive. mais xam nga dialogue moom dialogue politique mënul ñàkk te man j'ai toujours dit que ni Ousmane Sonko li yàlla def mooy jàmmi réew mi mu ci loxo ok wax naa ko fi keroog ci premier dialogue. Mm. man leen dialogue bii du dem parce que Ousmane Sonko bokku ci. Mm. te wax dëgg yàlla mënoo woote dialogue sans la participation du leader le plus influent au Sénégal. donc ndax euh, jàppoon ne dialogue bii euh, mun woon am ay euh, fruits parce que Sonko bokk si. bokk si mais c'est l'élément crucial l'élément fondamental. finalement dialogue bi lu mu jur est-ce que dafa tax la taxoon ñu wote dialogue bi dafa tax tension politique bi amatul ci hmm. espace politique bi hmm. mais dafa gën a accentuer la tension jour bi ñuy toog di dialogue rek am na ay manifestation yu am ci biir réew mi maintenant dialogue boobu la ñu faussé moom la ñu échec man bañuma le président Ousmane Sonko ak président Macky Sall waxtaan pour l'intérêt de sa pays bañuma ko Abdou Diouf mi Abdoulaye Wade mi amone na fi ay jamono comme niko Ousmane Sonko amé dans les années 88 mais bu laajee pour ñu tok waxtane réew mi ci lo xamne da fay jëm ci njariñul sénégalais yi njariñu réew mi parce que Ousmane Sonko comme je l'ai dit tantôt il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui portent leur espoir en lui tay ñaat nit ñoo ci nekkoon ci kasso bi mais bu jaré waxtane pour que ñu libérer tous ces détenus politiques là mais day waxtane parce que loolu ça va dans l'intérêt exclusif du peuple sénégalais parce que ñi ne ci kaso bi seeni famille ñu ngi leen di xaar ay kilifa lañ di joxe dépense seen biir kër seen famille yi gis nga nu ñu sonnee ba parti démb démb seen famille yi daje nañ. Hmm. def point de presse di am lu ñu ñaawlu ak lu ñu dénoncé. Hmm. donc bañuñu waxtaan waxtaan dans une démocratie kooku le système communicationnel dafa war exister entre ñi ñu jiite ak ñi ñu jiitewul tey dama ne la la solution Sénégal la solution de ce pays. ci loxo loxoy Ousmane Sonko la reposé wu. kon nag moom mi nga xamante ne loolu yàlla dogal na ko si moom mais na accepté aussi ñu waxtaan mais daa l' intérêt exclusif du peuple sénégalais. étant en prison situation dëkk bi. wala comme sax xam nga Alioune génn am na. loolu si ay loxoom la tegu. non ci loxoom bi loolu yàlla moo ko dogal ñu fi mën a dialogué te Ousmane Sonko bokkul jàpp leen ni Fouras daane fa dem Fouras daane fa dem. te am na benn communiqué bu may gis xaw ma nag ndax moo ko indi bind wala déet parce que nee bi ko waxee Macky bëgg na waxtaan ak yow. mais dafa ni carrément il faut que mu jël temps waxtaan ak ay ay nitam. ay waa ay nitam ak ay nitam. Ah. mais le leadership noonu lañ koy incarner. Mm. loolu mooy un leader. Mm. un leader type noonu lay doxalee. donc je ne pense pas que Ousmane Sonko bu ñu ko woowee ci waxtaan pour l'intérêt lu mën a génne Sénégal ci situation da koy def donte nag le président Macky Sall c'est tombé dans son propre jeu loolu moom ñëpp xam nañ ko lii lépp ay pexeem yu jubadi moo ko conduit dans cette situation là aujourd'hui il a besoin euh, que tout le monde soit à ses côtés pour ñu dimbali ko. ñu dimbali ko si mais Macky Sall il est il est seul contre tous. il est seul contre tous. il est seul contre tous. mais Sonko lan la monde situation peut-être euh, mu fexe ba li nga xam que moo askan wi euh, nangu li nga que moo di report yu maanaam ñu euh, li nga xam que moo reconstruire wu ak li nga que moo le report du président Macky Sall peut-être jàpp nga Ousmane Sonko si foofu la war intervenir en faveur de lui. mais Ousmane Sonko dama ne la. Ousmane Sonko mais wax ci présidentielle. aussi. oui. Hmm. mais est ce mais ñi xaar parce que Ousmane Sonko ñu la def silence silence silence mais amna déjà ñuy gën di. ah mais am ñuy tamit nak dañuy xaar sous officiel bi. ñi gën ñom dañuy wax. mais man je ne pense ah. pas Ousmane Sonko en tant que leader en tant que démocrate. Hmm. en tant que patriote sincère en tant qu'un homme de parole de dignité et de respect je pense que Ousmane Sonko lepp lu nga xam da fay jëm ci intérêt Sénégal ak Sénégalais hmm. Ousmane Sonko buñ ko ci il sera le premier à avoir participé ci contexte da fay évoluer. Sénégal Ousmane Sonko déjà a defal nako ndam président Macky Sall mo bëgg a gisee mom moom. le ak moom. Hmm, hmm. donc du mom moy demandé. pour wax le président Macky Sall. mais c'est le président lui-même qui a demandé. hein pour dialoguer avec lui. Mais, euh, mais comment comprendre pas de compromission ni de compromis avec le président Sall mu nekkoon charte yi nga xam ne itam ko au sein de Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. Euh, ñu ne pas de compromission ni de compromis avec le président Sall te Yewwi Askan ba tey mi ngi entre les leaders tu as dit justement. Euh, ah mais ñi ngi hésité ba ngi dem rek te neen de presse ñoom neen ñoom Aïda Mbodj et consort nee na te leen y a unifié wu. de de façade de façade non. bon di gis na sax Khalifa Sall di melni kuy xaw yow est-ce que du façade. de de de way de façade mais Yewwi tas na Yewwi ñëpp xam nañ ni pratiquement bu doon ne bu tey bu tey la dama naan xottu rek fa dess xott rek fa dess ya beaucoup de gens gis nga bi ñu demee ci dialogue bu rek waxtan c'est-à-dire ñom Khalifa Sall lañu ñu def ci dialogue bobu koku seen intérêt mbiru bopp la te moment bobu ñuy woote dialogue. ñom hmm. ñepp waron nañu mëna dem participer ci dialogue wala ñu bañandoo mais moment bobu sen ben collègue sen ben natango qui s'appelle Ousmane Sonko mi ngi ñu barricade këram alkaati alkati alkaati yi wër ko koku mënu won participer ci dialogue bobu ñu waxante deug Ousmane Sonko c'est un homme de dialogue man et j'en suis sûr et certain que ni buñ ko wowe ci dialogue ci njëriñu Sénégalais yi dina wuy dialogue ci luy génne Sénégalais ci kaw Ousmane yéenewul Sénégal lu dul jamm en le connaissant yéne wul hmm. Sénégal lu dul jàmm alors donc da nga jàpp ni si période c'est que nous conditions yi nga xam ni son euh, Sonko moo itam participé dialogue da ko amul won exactement mais Serigne entre temps ak tey jii jamono jooju ak tey jii lan mo fi changé. parce que fële euh, barricade barricade woon nañ ko waaye tey fii euh, tëj ko déjà si li nga xam que modi di kaso bi étant d'autres étant d'autres plus de 7 mois de prison exactement est-ce que japp na ni entre temps contexte yi am évolution. amna évolution bu baax contexte yi bokul ça? contexte yi bokkul c'est pas le même contexte. fële libre woon tamit libre wul. oui mais ban moo gën a nekk en équation ci ñaari contexte yi. fii président Macky Sall moo gën a soxla. oui fële dafa waxoon ku ñëw baax na ku mer. xam nga contexte bële ñu. wala ku ñëwul. bële ñu tolloon <laughs> Macky Sall il se vantait de n'avoir pas voulu Ousmane Sonko il l'avait dit même ci ay dialogue dama le la mm. Macky Sall. y mm. ci stratégie politique il ne mm. voulait même pas la participation de son corps dans ce dialogue là il ne le voulait pas. mais c'est lui qui a besoin de la participation de son corps Macky Sall aujourd'hui c'est un président qui risque gros qui risque gros c'est une situation qui est aujourd'hui euh, ku yuuxu sax maa ngi dégg sax Mamadou Lamine euh, Diallo bu tekki defe naa recevoir mm. na ko. Mm. ci li ma dégg. Mm. te démb rek la def ko nekkoon ak Nene Aïcha ci télé fi mu toll nii ku yuuxu mu recevoir la il est seul il est seul aujourd'hui la seule personne qui peut sauver le Sénégal c'est Ousmane Sonko citation yi nga xamante ni aujourd'hui ñu ngi koy supposé ni mën na am parce que Sénégal si guddi gu bët c'est à la nekk ak lu ñu mën a a mën a wax mais en quoi Ousmane Sonko daal di war a sauver le Sénégal exactement parce que euh, il jàpp a ni combat bi ñuy xeex euh, combat bu jëm euh, la constitution la ni gën a ñu ñaan li xam justement la constitution en fait daal di amal li nga xam ces élections à date échue alors mais c'est donc en quoi ngeen japp ne Ousmane Sonko pour sauver li nga xam nekk moo le Sénégal alors euh, sauver le Sénégal satisfaire ki nga xam nekk moo le président Macky Sall parce que dialogue su amee euh, ñaari day am euh, c'est-à-dire ay échange la jox ma li ma jox lele donc Ousmane Sonko sauver le Sénégal japp ngeen moy mu influence jeune pour ñu tok sen kër yi wala mu daldi di mëna d'accord ak président Macky Sall. non da koy imposer li Sénégalais yi bëgg rek les Sénégalais yi bëgg xam nañ ko. mais affaire d'autres amati mais mais en tout cas de toute façon report day am. non report mën na bañ am. parce que conseil constitutionnel vous voulez prononcé mais le 25 février est ce que l'élection est dina am à date issue ce 25 février. au delà au delà du 25. en tout cas nous report ñu ñu déglu le conseil constitutionnel. parce que même de loi bi nga xam voté nañ ko nationale loi bi ba tey jii nii existé gul. kenn borom liggéey ko. entre temps jàpp nga ni moo candidat yi campagne à tout moment élection yi amal le 25. mais yow le président Macky Sall mën na le 25 février une élection day am. sans campagne sans dara il est sous pression. mais lan moo tax passer Pastef yi def campagne continuer campagne xam nañ ni le président Macky Sall sañ na lu ne xam nañ ko ñoom Guy Marius Sagna yi xam nañ ko. lu loi bi dialogue promulguer ko man balaa may gëm ni élection du am le 25 février conseil constitutionnel prononcé ou, te conseil constitutionnel ñëpp jàpp ne li mu war a àtte mooy na loi bi parce que conseil constitutionnel dama ne la tey compétence am ak sañ-sañam mooy xool ndax eh, loi yi loi bi ñu indi ndax amul ay dispositions yu yu